Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance en nous les gars, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également gars de baisser les commentaires, un plaisir au nouveau les gars et chaque fois de partager les informations et un box sénégalais également, fait pour les Monténégalais, 14 régions du Sénégal, Rokurokhari Gorgokhari, ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital de ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm ñu ci yi aussi erreur judiciaire Guinée ñeen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu delluwaat doon suñu borom xar leen àjjana fi daw si gars yi ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actu l'actualité en continu. actualité bo xamna gay gars waxtane ki moy donc ki di euh, pap gay bi nga xam da day am daanuñ ko daan wax également ci ki di dona Donnarumma bi nga xamne gay gars yi dem lañ ko nogatu moom ak euh, soxnam daal leen di fekk seen keur daal leen di patam patame loolu nañ ci ndey leeral mais laata boobu nak yene kay bi di record ci xarit bu ñëk ñew ne Sadio futur coéquipier de CR7 loolu nak ñom dañ ñe bo sol ñoom dañoo sukkandiku ah record déglu leen wax ju baax dañu sukkandiko ci l'équipe wax ñu ne ñoom si l'équipe l'équipe wax Sadio man dafa am accord ak nga xamne donc ñi di wa donc ñi di alda su tam wax lool parce que ki nga xamne moy donc rédacteur plancher bu record moom mooy donc chargé de communication bu Sadio Kayser magnifique Mané yéen kay bi di stade ñëw ne Sadio di oui à Al Nassr loolu mom le stade wax né dal Sadio wax na waw à Al Nassr loolu dal ñom lañ def seen xët gu njëkk mais aussi ñu wax reprise en douceur pour gagner yi nekk ci Arabie Saoudite félicitations wala bok joyeux anniversaire plutôt ki nga xam ne mooy donc Babacar Ndiaye di président bu Teungueth FC di nekk ko xamné aussi liñ koy gis wul mais comme à l'image donc de ki di Madi Touré di ñom ay ñum Sayer Seck mi ngi def la mom liggéey bu am solo di côté Teungueth FC nak ba mu jox na Teungueth benen gisine beneen anam beneen xar kanam boo xam ne mi tax tey ñu nekk ci kaw gars yi nag ay attaques yi amoon na fi jamono BBC MSN. BBC MSN gars yi ban attaque pour yéen moo taxaw ci jamono ji nii ah pour yéen ban attaque moo gënoon taxaw ci jamono ji BBC ak MSN pendant ce temps nag gars yi nan ni nee <laughs> benn anecdote nee na dañoo benn match avant match bi Alex Ferguson ne ban jour na ne man naa la a mu ñibbi nag <laughs> neen ci yoon bi yëpp entraîneur bi waxu ko sax benn benn kàddu gu ndaw Rodrigo moom nee contre Croatie coupe du monde dafa raté penalty ne ba muy dóor Modric na ko acca demal dóor comme ni nga dooree woon <laughs> te nee na Modric ba ko doon encouragé na ko doon jëpp raté penalty donc lii nag gars mooy maillot extérieur bu ñi nga xam mooy ah, donc le club le plus titré au monde ñi nga xam ne mooy donc lii di mayom beneen mayom bi ah gis ah, na ñi nga xam Everton mooy donc doomu Nicolas Anelka moom nag na contrat ñaari at ah, donc du côté benn plutôt du côté du Paris Saint-Germain donc nous foofu noonu ci centre de formation bi Kayz Anelka top tànk dans ndax métier it Paris Saint-Germain dañ ko formé kii nag di Donnarumma gars ay ci Samba ñoo ko fekk këram moom maanaam takk leen ba ñu dëgër daal leen di sàcc yóbbu lu tolloog 500000 euros euh, daal di après yóbbu leen euh, hôpital donc moom loolu ko dal jamono ji mais teewul nag nee tournée bu Paris Saint-Germain bi ca Japon dina fa daal di euh, dem kii nag di Nico donc le joueur de FC Barcelone moom ba yi passé ba mu jeexee kii di Xavi da ko woo ne nag compté wu ci yow et tout fi mu nag moom dis bonne chance hein, parce parce qu'on dirait il y a une dem club boo xam aussi club bu am image bu rafet la am palmarès également bu rafet la y a waa Juventus ñoom ñu ngi insister à l'église surtout quand war a am réunion nag waxtaan seen biir. Barça daf ko bëgg abalé mais Juventus ñom lañ ko bëgg jënd mom nak fi ni 15 millions dal lañ évaluer njëgam ki nga xam mooy Franck Kessié ah, di Emre Can moom tamit ah, moog Bayern mi ni ngi wajé a wa plutôt Dortmund ñu ngi wajé a pour mu dali tok du côté donc du club donc des jaunes et noirs euh, du Borussia Dortmund donc da fay wajé tok bu féké né donc xaatim na contrat bu yes bi nga mom lañ ko proposer ki nak également de Arthur Melo mom nak euh, day dem na du côté de la Fiorentina Fiorentina daal la dem mom lañ ko abalé dégg egg démb la egg ci guddi mo nekk ni ci Natal gi ngeen gis dafay signé nag ah prélog avec option d'achat ma dañ koy abale mais mënuñ ko jënd bu féké lam fay def dal na xélo ñi du Fiorentina tamit mom nu bëgg na tok Gallagher nak wa Chelsea dañ ko bëgg jaay West Ham mi ngi ci kawam Aston Villa mi ngi ci kawam ndax dañoo bëgg jënd ki xam moy mooy Caicedo pour ñëw tek milieu de terrain bo xam dañu am milieu défensif bu am kattan bu am mën-mën lo daal fini ni la Chelsea dal di euh, bëgg ki xam ne nag Ahmadou Bamba Dieng wala boog ma tuddé ko Bamba Deng Dieng ñu nga reprendre na avec ñi xam moy donc Lorient Bamba Dieng mi nga xam na gaay saison bi moom amul droit à l'erreur quoi donc daaw def na saison boo xam blessure yoo ko sonal et tout mais ren nak mom il a envie dafa bëgg wane bopam bëgg ñëw l'équipe nationale du Sénégal pour loolu nak il faut mu woné bopam baax a baax kii nag di ki Pape Alassane Gueye ah, ma tuddu Pape Alassane Neex Nerset Neex Seet Gueye moom nag dañ ko daan tribunal arbitral du sport ñu tuddee ko TAS nga xam mooy àtte lépp loo xam mooy trof trof diggante équipe yi joueur yi yu ni mel daf ko daan légui né day fay 2,5 millions d'euros lay fay Watford ndax lan moy dafa signé won contrat ak ñom dafa xati woon contrat ak ñom 2020 ñu ne ba ci bi mu daal di dakkal contrat bi dem signé ak Marseille

man comme je xaw na sévère tout mais baax na moo gënoon ñu koy tere sanctionné mu bañ a benn club et tout mais loolu daal moo nekkoon information bi leen bëgg a jox si suba di jégal na gars ci retard bi mais tamit dina wax ne yeneen information mi ngi ñëw xaar ko jox leen détail wooyu leen di laay gars yi dem leen abonné également ci Baba Show ngir gën a mën ñoo dooleel foofu mais aussi am na yu fay ñëw je conclus léegi dorénavant foofu lañ koy defee on avance ensemble jaa